grand maa ngi lay ziar. mais maa ngi delloo ziar sëñ Babacar sama sëriñ nuyu naa la. maa am nga jàmm. waaw sant yàlla bu baax alhamdulilah. tey nga gis lamb ji ni mu feese nii macha allah. waaw tubaarkàlla sant yàlla rek di féliciter Dieye parce que Dieye dafa nekk amateur balaa muy nekk promoteur boo nekkee amateur da ngay xam yan combat moo baax da ngay xam yan xale ñoo am gannaaw mu am ci wetam ku nga xam ne aussi dafay dund lamb muy Abdoulaat Ndiaye donc tey xale yi mu boole euh, gox boo ci dem. Euh, ay ay champion lañu fa te waa gox ba dañu leen a jox euh, dañ leen a jox bopp moo tax làmb ji mel nii et lool day wane ni aussi làmb xëy na tey ñi ngi wax crise mais bi ñuy wax crise aussi dañ koy dañ koy différencier crise au sommet de l'arène mën naa ko d'accord mais à la base nit ñaa ngi bëre samedi bu nekk combat am dimanche bu nekk combat am Ibamaara ngi fees. te lutte simple baa ngi dox macha allah. te lutte simple mi ngi dox kon crise bu amee c'est au sommet de la l'arène ñi nga xam ne moom la ñu tuddee tey. les VIP ñoom ñoo amul combat mais xale yi ñu ngi bëre. mais tey au sommet nga wax ca kaw a kaw mu mel ni ñenn ca kaw ni mu amee noonu la amee si promoteurs yi koo xam ne tey mën nañ ne ci promoteurs yi nekk au la bokk yàlla def yoon teg ko loxo barki démb yow yaakaar naa am ngeen ay relation comme ni mu ko amee ak ñëpp mais tey loolu bi nga ko yëgee loo yëg ak combat bi mu taxawal ak itam ban taxawaay la ci la ci càndum war a am si loolu. waaw euh, biñ ko yëgee déjà am nañu lu ñu betti am nañu lu ñu bett parce que décision bi nga xam ne moo ko arrêté ça fait deux ans bi ñu ko jëlee ñu jugé ko Saint-Louis def ko mandat d'arrêt boobaak léegi deux ans Luc mi ngi dem di ñëw di dox ay soxlaam di organiser ay làmb kenn jàpp ko alors question bi mooy lu tax période boobu téye wuñ ko alors que mandat d'arrêt mi ngi woon euh, ci kawam ñu bàyyi ba nga xam ne taxawal na komba bu mag. muy diggante Ama Baldé ak Modou yoon teg ko loxo 24 heures après wala 48 heures après mu bett ñëpp metti ñëpp parce que période bi nga xam ne ci lañ ko téye ci la ñu amoon njàqare di wax kan mooy tëgg combat yu mag yi moom ci bëggam làmbam ci bëgg jàppale jeunesse su Sénégal mu taxawal combat bu mag boobu ñëpp ne ay la yéwén làmb ji déclenché na bu ñu xëyee teg ko loxo loolu dinañu xaw a jaaxal tey day indi benn équation est-ce que combat bi dina am wala du am parce que tey ñu bari ñu ngi wax naan dafa am structure bu tudd Luc Nicolaï and ndax structure bi war na continuer def démarche ba taxawal combat bi ma ne Luc est la tête pensante de la structure Luc est le bailleur de la structure Luc mooy négociateur structure bi amul kenn ci structure bi kuy wax ak benn stafu mbër wala kuy génne xaalisam di doxal làmb Luc mooy génne xaalis mooy waxaale mooy def lépp kon xëy na am na lu nekkoon ci kawam ba tax na mënuloo nekk au devant mais ci suuf moo doon tirer les ficelles bu ñu ko téyee mën naa wax ni un grognage perd sur plane sur le combat Modou Lo Ama Baldé pour man combat boobu actuellement nii bi yaboo ñu teg ko ci suuf tant que Luc Nicolaï mi ngi ci kaso bi pour man du sotti ba keroog may gis leneen. maintenant li ci des moo di ni tey posture bi ñu war a am ñun ñi nga xam ne ay xaritam lañu ñun ñi nga xam ne ñun la seqal làmb muy famille làmb mooy ñu am solidarité solidarité bi ci njëkk mooy ban li nga xam ne moom la Luc Nicolaï laaj lu yomb la keroog bi muy jógee gendarmerie Thiès ñu koy yóbbu tribunal bu Mbour moom ci jëmmam moo ma jot téléphone ni ma malik ma ni naam mu ni ma maa ngi dem bir na ma ni dañ may téye waaye kaso du sama problème benn problème rek laa am mooy bu ñu may tëji tamit nañu ma tëj mbuur ci sama wetu famille wala ñu tëj ma Thiès ma jege sama famille fa ñu ma bëgg a yóbbu muy ndar awma fa mbokk awma fa benn attache sama soxna bu ndaw bi mu muccee yàggul sama soxna bu mag mi ngi tollu diggante diggante Saint-Louis ak Mbour mat na plus de quatre cent kilomètres ñu may indi lu ma lekk wala di ma toppatoo loolu mënul nekk buñ may tëjit nañ ma tëj ci sama wetu mbokk kon loolu yaakaar naa ni lu xel nangu la lu justice war a saytu la parce que nit buñ lay tëj nañ la tëj fu jege say mbokk loolu mooy benn bi beneen bi ci des moo di ni décision de justice am na kenn dootul lam-laamee ndax li ko ni moo def wala deful ku ba tëj la yoon dafa am ay preuve yuy wane ni yow yaa def kon ñun posture bi ñu war a am mooy taxaw jéggalu jéggalul Luc Nicolaï kan mooy yor njéggal mooy le président de la république gardien de la constitution chef suprême des armées kooku la war a woo ñaan ko mu jéggal la ñu Luc Nicolaï may ko grâce ñuy woo le ministre des sports Matar Ba mu def ci ay jéego ñuy woo ministre de la justice mu def ci ay jéego ñuy woo la justice ñu am clémence Tulit Nicolaï pour jéggal ko mu delluwaat ci ay activité am delluwaat ci njabootam kon daal njéggal la ñu war a ñaan amul bras de fer amul wax li def na wala deful mais nañ ko jéggal loolu lañ koy ñaanal jërëjëf. président Doudou ko président des amateurs maa ngi lay nuy di la ziar. maa ngi lay fay Babacar di nuyu waa Leewtoo production. tey ngay amateur gis stade bi ni mu mel maanaam nitu lamb yu yëpp génn presque tey waaw boo gisee nit ñi naan làmb doxul làmb ngi dox parce que journée yëpp jeex na promoteur yaa ngi dëgg làmb yu mag rek la ñuy wax te làmb yu mag moom wax dëgg yàlla war na am mais mbër yooyu dañoo respecté wul sponsor te làmb pour mu dox il faut mbër yi respecté sponsor parce que même boo demee football FIFA sponsor moo koy doxal boo demee CAF sponsor moo koy doxal làmb aussi bokk na si li sponsor doxal mbër mi fekkee promoteur da la jox xaalis am am partenaire sponsor am fay la da nga war respecter conditions yi respecter signature yi respecter euh, euh, euh, programme télévision yi pour sponsor bi si boppam. ci soppam mais promoteur bu mag tëgg làmb ju mag muy Luc Nicolaï ñu xëy na yoon arrêté nañ ko yoon arrêté na ko yow ngay nitul làmb di nit ku bokk ci réew mi loolu du jànje ko ban yëg la ci am ban taxawaay la ci war a am. am loo xam ne nag. bu amee waxtaan moo si des ak médiation médiation bi mooy ay nit dem seeti ki nga xam ne nii moom la amal problème ñu ñaan ko def médiation wa ila président de la république moo si mën dara donc lañ ciy ñaan président jàpp si ñëpp tamit jàpp si dem defi seeti ñi nga xam ne ñoom la séqal ñu def médiation seet niñ koy arrangé pour mu jénn parce que foofu du place am place am mooy day liggéey yor na ay employé mooy li dal mooy li dal président Lamine Diack moom it dañuy ñaan mu ñibbisee ak jàmm mooy li dal Massata Diack ay nit la ñoo xam ne dañuy dimbali population sénégalaise lig day yokk ay emploi loolu la ñuy xaar si Petit Mbay aussi suñu xarit moom it day dimbali ay nit day yokk ay emploi donc ñoo ñëpp seen place du foofu seen place mooy ñibbi Sénégal liggéeyal réew mi ñu bàyyi Luc Nicolaï ak ñu mel ni ñoom parce que dañoo war a liggéeyal réew mi liggéeyal réew mi boobu tey ñoom dañ leen siy xaar kon nag dañuy ñaan président ñaan ñeneen ñoo xam ne war nañ mën a dem seeti ki nga xam ne moom la séqal ñu jéem a def médiation mu jéem a jénn ñëw fii si làmb ji jërëjëf. Papa Khadim maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, maa ngi lay euh, fay bu baax euh, di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan télé bi to production. Papa Khadim Samb mu mel ni ren tëgg nga ay combat pour amateuru làmb yi mais pour dimbali xale yi. waaw. tëgg nañu làmb parce que man ci làmb làmb jox na ma lépp làmb defal na ma lu ne ci làmb laa liggéey ba retraité daanaka tey reporter yëpp samay doom lañu mbër yi bëri sumay doom lañu kon retraité du tax ma bàyyi làmb moo tax ma jënd licence euh, def fête bu rëy le 9 février ci arène nationale bu àndeek dogal yàlla muy bés boo xam dama ciy delloo njukal président Macky Sall mi tax ma dellu RTS ba retraité nekkoon fonctionnaire de l'État moom ak soxnaam ak sénégalais ak sénégalaises yi def ñaari ñaari trophée muy trophée président Macky Sall ak trophée première dame muy diggante Ama Sène Senior ak Bour Sine diggante ñax jariñu ak Alioune Seye numéro 2. am koo xam ne ci askanu làmb la bokk muy Luc Nicolaï ñu ne arrêté nañ ko yoon arrêté na ko tey yow ngay kilifa ci réew mi. bokk ci askanu làmb tey ban eh, maanaam lool bi nga ko yëgee lan la def ci yow ak lan ban taxawaay la ñu maanaam lañ mën a xaar ci yow. waaw eh, wax dëgg yàlla sama xol tooy na bi ma ko déggee ndax li benn pilier la woon ci làmb boo xam ne liggéey na ci lu rëy xanaa rek di tàllal yàlla loxo di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom mi ko teg loolu yàlla na ko yàlla sunu borom teggi fas nañ yéen it danañu xool yan jéego la ñuy dox bu àndeek dogal yàlla ndax yàlla sunu borom def ci réew mi jàmm. ndax ki ko jiite muy président Macky Sall nit jàmm la te jàmm rek la bëgg yàlla na yàlla suñu borom def ci réew mi jàmm jërëjëf. père Becaye a ngi nii yaakaar naa ne lig di ko laaj Sénégal yëpp xam nañ la moom àddina sax laay wax yaa ko tudde woon l'homme des grands événements yaa ngi dégg tey mu tëgg combat bu rëy teguñu ci ay waxtu yu néew yoon arrêté ko père Becaye ban yëg-yëg la am ci lool ak bi mu ko yëgee lu njëkk ñëw ci yow loo njëkk xalaat. waa xol bu jeex nag sincèrement. ndaxte kenn yéenewu ko ko rawatina mu bokk ci ñiy defar làmb di suqali làmb làmb nekk ci jafe-jafe lig dem tëgg combat bu nu amoon yaakaar ne làmb dina fi jógee déclenché déclenché wu waat mais malheureusement yoon ñëw dal ci kawam waaye yoon la xam nga yoon moom kenn mënta xeex ak moom nous sommes des républicains li nu war mooy ñu ñaan tàllal sunu loxo ñaan ñaan autorité yi ñu jàppale nu ci lii nga xamante ni moo dal Luc bu nu ko mënee taxaw ba mu deñ ah moo nu gënal de ndaxte bokk na ci ñi nga xam ne ñu ngi defar te comme ko day defar te Ama Baldé ak Modou moom nu mën a def dina noonu bëre. ah bien sûr bañ a bëre ah nanu entraîné de bañ a bëre ah non combat bi dafa baax ci làmb. est-ce que PRBK yi pare ngeen yéen waa làmb pour dox ci ay jéego ci mbirum Luc Nicolaï. ah mais bien sûr xam nga dafa am yoo xam ne kenn da ko wax boo ko waxee mu yàqu. waaw am na yu nu nekke moo tax da day bàyyi noonu rek yàlla na ko yàlla taxaw ba luñ ciy def daal yàlla defar ci jàmm ba liggéey mais tey da ngaa ñëwaat jël sees. waaw léegi dama dellu parce que damaa xool xool daal xam borom lay di tigre. waaw borom mais yaa ngi toj jamono nag. non maa ngi jéem rek. li ngay def neex na. mais eh, grand bàyyi leen ma. père lay di tigre. booy bàyyi ma. lay di tigre. Leewtoo. père daa ñëwaat xoolal père ak microbe. Babacar. Luc Nicolaï tëgg làmb ju rëy yaakaar naa tey bokk na ci promoteur yi nekk au sommet ci làmb yoon arrêté ko loo njëkk a yëg ak ban ban ban gis-gis nga am ci loolu. métit bu doy waar laa yëg Babacar xam nga Luc tolof tolof mu ngi bëgg a yàgg ci moom te ku ci nekk da nga koy natt ci sa bopp bu doon sa jëmm wala muy sa wéyjur wala muy sa mag wala muy sa mbokk Luc dafa bàyyi lépp lu mu doon def concentré wu ci lamb di am di def ci lamb jamono def ko mu am ay tolof tolof lañu ñu ko jiñ su amee yàlla rek a xam su amulee yàlla rek moo xam ñun on n'est pas là pour juger l'homme déedéet waaye dañu xool li mu jëfal réew mi baax dama leen conflit Casamance ak Sénégal bi mu tawee ñëpp Luc Nicolaï moo fi organisé le drapeau de la paix jëlee Abbé Diamacoune Senghor ba Casamance indi ko fii tey stade de l'amitié tey actuel stade Léopold Sédar Senghor ko fa conflit ba arrêté ci conflit boo xam ni depuis 79 ñu ngi ci rey ay doomi Sénégal di ci rey ay doomi Casamance ay mbind di dëgg ay tànk di teg ay loxo Cheikh Luc Nicolaï saafara loolu Modou Lo Balla Gaye Luc Nicolaï njëkk wàcce hélicoptère ci lam Babacar xanaa Gris Bordeaux Balla Gaye fii la la fekk kon combat bu 16 millions d'habitants bëggoon di ko jooytu guddeeg bëccëg mu bàyyi lépp lu mu amoon sacrifier njabootam sacrifier patrimoine am jaay alalam def ko ci ngir benn cause benn cause mooy na réew am estabilité ngir benn cause mooy na sénégalais am jàmm ngir benn cause mooy na xol yëpp feex ay Babacar Luc Nicolaï bu ñu ko takkalu ordre national du mérite Luc Nicolaï bu ñu ko yëkkatiwul chevalier à l'ordre national du mérite kenn war koo denc ci kaso bi palaasam lu ci kaso bi Luc est un honnête citoyen Luc murit la Serigne Fallou sëriñam Cheikh Abdou Karim Mbacké sëriñam nanu ko bàyyi Babacar